du Sénégal ñu am suñuy réalité am suñuy aada. ñu bëgg ko fa bàyyi. ñu bàyyi ko fa maintenant nag dañu war a dellu si suñuy tënk suñuy tëgg suñuy texte. dañ ko ci boole. ñu war ko ci mën a boole. suñuy tëgg suñuy texte. mais daf ci ñu boole si suñuy aada parce que suñu aada suñ ko ci boolee peut-être la la la la l'existence de la de du juge des libertés. Mm-hmm. moom mooy facilité loolu. Mm-hmm. parce que juge de libertés bi parce que bon maa ngi koy nuyu Thiaré mi ngi suivre c'est un juriste dafa d'accord ak moom ci sur toute la nee na juge des libertés et de la détention rek moo mun a régler l'affaire fii dans ce pays la parce que nit ki mënul nekk chef de famille di liggéeyi nga jox ko mandat de pour tëj ko kaso xañ ko liggéey liggéeyam boobu xañ ko gis njabootam. juge de liberté bi mën na régler question ba nga xam ni nit ki war nañ ko mën a bàyyi à travers les bracelets et autres pour mën a am parce que procureur su nekkee dafa am doole. loolu du am. kooku xaar ba jour jugement mu ñëw. mu la ñëw uyu si joxe ay garantie pour ñëw uyu si. day tax procureur bi du doy maintenant nag dans les jugements boole si la réconciliation mooy li nga xam ni mooy suñu cosaan. Ah, parce que loolu kay avant jugement sax war nañ ko mën a. waaw avant jugement cest à xam nga par exemple dafa am situation bu bu am. damay bañ ñoo dema sa personne mais am na boo xamante ni non non non am na situation bu am situation ba mu amee ay nit ñoo ci dox ba loolu jeex maintenant nag su juge des libertés boobu wala tradition bi su amee ki nga xam ni moom la ñuy topp te mu tooñ na am grandeur. reconnaître erreur reconnaître erreur am. foofu kay boo nanguwul ni maa tooñ. waaw moom laa wax c'est-à-dire c'est-à-dire xam nga xam nga lu tax suñu suñu suñu suñu suñu kaso yi fees nit ñi dañoo rëy. nit ñi dañoo rëy trop. nit ki soo tooñee soo taxawee ci kanamu juge nangu nit yaa tooñ nga. ci audition ba sax. ci audition ba nit wax na ni maa ngi jéggalu. waaw damaa juum. mais terewul terewul jàllale nañ ko. waa xam nga lu tax xam nga lu tax boobu damaa juum. c'est parce que kooku dañ ko bëgg peut-être sanctionner par rapport à la société pour donner exemple ci li ma jàpp. tout à fait ci li ma jàpp.